mbokkeek euh, xarit ñi ci euh, Thiès Info ak Thiès TV toujours ñu ci l'actualité asso ñu nek fi ci commune bu Thiès Est ki ko jiite di euh, Pape Bassirou Diop dañ koy bay rek mu nuyo def présentation ak mbokkeek xarit ñi monsieur le maire asalaamaaleykum maaleykum salam Omar ñu ngi leen di nuyu di leen sant di ballu ak ci koor gi di bal ñëpp ak yalla nañu yàlla boole jéggal nangul na suñu koor yi ak suñu jàmm yalla yépp jéggal na suñu manquement yépp te defal lu kawé suñu njort ci koor gi ñu ngi sant nag waa Thiès yëpp di nuyu waa cees yëpp ak waa Sénégal yëpp ak bitim réew yëpp ñu ngi nuyu ñëpp jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu doomu adama yi. voilà monsieur le maire sa présentation tey boo koy def da ngay jéggi turu maire bi. waaw parce que comme ni ma nekkee maire de la commune de Thiès Est maa ngi yore tam ci parti bi ñu nekk di réew mi yore chargé de la diaspora man maa ko yore man nañ ko dénk ma ci jéem nag di ci góor góorlu waaw. voilà monsieur le maire sa commune bu Thiès nekk na commune bu am doole ci wàllu élection ba gis nañ ni am na sax foo xamante ne bu résultat xasee génn rek am na ñoo xam ne dañu naan gagné nañ muy centre yi nga xam ne mooy li mel ni cité Lamy ak Modakan ñu bëggoon rek nga ñëw tuuti ci tënk rek ci li nga xam ne mooy électorat bu commune bu Thiès Est. waaw dañuy sant yàlla rek comme ni nga waxee comme yàlla def na tam bii mooy suñu deuxième mandat euh, ñu jaaran fi tam yàlla indiwaat ñu euh, di sant population Thiès yëpp nag. parce que du man dong ndax dama ko seq ak équipe yalla def itam ñu dénk ni ko en 2009 ba ñu ñëwaat ñu dénkaat niko aussi di ci sant yalla bu baax population Thiès Est parce que nak eh, lepp ñom la ginaaw yalla parce que yalla def na ñu nekk ak ñom ah di jëm ci li nga xamanteni ci walu nga xamanteni ñu ngi leen di administrer ñu ci jëm à nos maigre moins pour que fexé au moins nous nous mën gérer suñu population.

waa diaspora bi ñu ngi leen di sant itam bu baax parce que surtout sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo bokk ak ñoom réew mi e, ci parti réew mi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen engagement yi ñu wane. te bala may avancer tam ma profité remercier waale leen ci occasion bi ndax ci référendum bi ñu jógee taxawaay bu mat sëkk lañ ci def ci amerique ci Europe ci e, ci biir Afrique wane nañ ci taxawaay bu mat sëkk. ba nga xamante ni euh, wax nañ ni daal euh, li ñu yaakaar ci ñom ña ko doon woné parce que so demee lu melni ni Amérique nga dem lu mel ni Italie moom Italie la fa nek yépp ñu ñoko ko gagné donc euh, te di santaale ñen ko bokkalan rawati ñi nga xamanteni nak suñu responsable réew mi la parce que seen taxaway tam dañ fa taxaw taxaway bu remarquable donc il faut que ñu sant leen goor ñi ak jigéen ñi ñu fa nek yépp tous les militants ak les sympathisants yi euh bi résultats yi waddee Euh, kontaan naa ci loolu sax xam naa ñëpp ci kontaan ñu ni bokk leen coalition bi ak parti mi mais rawatee man mi xam ne maa ngi fa doon demee di fa va et vient euh, loolu am na lu muy prouver que ni euh, ñu ngi ci doon jéem te loolu itam fi ñu jotul demit ñoo ngi doon échanger ak ñoom comme États-Unis di profité di leen santaale coordonnateur yi fa nekk ñoom Jacob ak ñeneen waa Mauritanie waa Gabon ñeneen ah, le monde entier daal fi nga xamante ni doomu Sénégal yëpp ñoo fa doon yeewoo occasion bi tax na ma profité ci ndax jotoon envoyé ci Facebook mais l'occasion occasion la pour ma profiter santalé len donc euh, di wax ni tam toujours euh, dem nañ fa tout récemment rek euh, man ak le président Idrissa ci Bambey bi sëñ Mourtala là def rabbi la yal na yàlla yokk leeram doomam diko Donc, def di sëñ Mamor Mbacke ma fay dem man chaque année di représenter le président Idrissa à New York. et di ko euh, représenté aussi en Italie daaw man maa demoon ren nag ma ànd ak le président Idrissa euh, di sant bu baax a baax tam comité d'organisation ba nekkan foofu taxawaay ban fa def di dellu di yeesal suñu njëbbal di ziar Serigne Mamor taxawaayam bi mu am ci yoonu murit ak ci doomu aadama comme ni ko waajuram daan def nga xam te ne l'islam rek ko ñor te loolu tam la Mamor taxaw Idrissa tam amoon colère ak sëñ Mortala di koy gën di yeesal. ba parole ba mu fa jël wax na leen digganteem ak seigne mortala kon nga xamanteni dafa yag ba mu nekkee au pouvoir ba bi mu nekkul pouvoir toujours mu koy réitérer bañ na ko ba chaque année man may représenter aux États-Unis ren jii nak mu jogolat bopam pour wane ne rek ci euh, fidélité euh, Idrissa ak ni mu fonké seigne mortala Mbacke dafa naa ni keroog ku taxawoon Brescia gis na ni ba mu fa jëlé parole waxu fa sax wax politique. waxul l'islam la fa wax waxu kóllëre la fa wax te dafa naa ni kóllëre nag yàlla daf ko fonk kon Idrissa lam fa taxawee ba tey lam fa bàyyi nit ñaa ngi woote di ko sant di vraiment di am yaakaar ci moom parce que nag nam fa waxee wax na wax ju rafet waxu taalibe waxu jullit waxu nit ku xam lu muy def ba tax na daal ñu ngi sant foofu bu baax que xam la diaspora mom surtout Italie gi nga xamante ni tournée bi mu ñëk def Fofu la ko def après référendum. di waxale rek Italie ak yenen yu melni Italie comme ni ma wax rek comme sama tournée bi fu mujj dem jot nañu échanger ak euh, responsable yi nekk fofu pour que ñu waxtaan que dañu bëgg euh, organisation biñ doon def pour le parti commencé ko Sénégal Thiès particulièrement

donc non lañu bëgg def nga xamante ni toujours dinañ mëna fekk euh, suñu activité buñ ci tolloo rek dootuñu am yenn jafé jafé euh, voilà monsieur le maire dañuy wax euh, actualité manam situation politique locale tey ñu gis digënté Idrissa Seck ak Talassi Sylla mi nga xamné moy maire bu ville Thiès nek na digënté bo xamné rat ratxatul té yow bokkoon nga ci nga xamné ñu njëkkoon taxaw bañ naan maire Thiès dañu dëgër bopp parce que dañu ñëw rek banque sen baram jëmele ko ci Talassi la ñu bëggoon nga indi ay léral ci loolu wa bon ma profité aussi encore rek di wax ni ñu ngi sante yalla bu baax ci lolu parce que nak euh, bu ñu waxé lolu wax ni ñu am taxaw bu taxaway war nañoo léral taxaway bobu parce que ñun la personne de tala on n'a pas de problème avec tala personnellement problème politique mo bindo bindoon euh comme mo bindo non nak fofu dinañ ci léral pour que nit ñi baña jaxaso parce que nak euh, defe naa ni commençant par man. Euh, man man nekkan bi moment bi muy ñew ci coalition bi j'étais le coordinateur nek le mandataire te l'image je parle sous le contrôle du de euh, représentant d'État bi fi nekk muy le préfet Mar man bima ñewé dama ni bi mu joggé mom Talla ci Idrissa bi muy soog joggé États-Unis ñew pour wara a ci coalition bi. Mhm, muy élection locale muy élection locale yi ñu passé. mom mhm. daf ma woo ma ko maa ngi sama kër ma dafa joggé ci Idrissa bi mu ñewé sama kër ma dalal ko li wax ci lay euh mi ngi koy dégg wala dina ko dégg wala dina ko jàngat mu jóge fa ñëw wax na comme commune est effectivement maa comme le mandataire mu ma rafetlu ko ñu le lendemain mu jox ma euh, judiciaire ak euh, pour que ñu man ko euh, ci il était venu tard un peu tard ça, tardivement mais man dama ni comme le le mandataire bi may def agent, yi bi ma pare bi ma euh, préfecture dama ni lu doy nit n'est que euh, candidat deux fois à la présidence la législative donc tout le monde a tam lu muy représenté mm. man j'ai ko agent c'est may agencé il foon Idrissa nekk

mais cër lañ ko defal parce que ñun réew mi nag ñu xam teraanga fi nek nekk ni Idrissa mi nga xamante nag mooy suñu kilifa bi mu ko defee tam defe naa ni e position su ma ko yóbbuwoon mu nek 25e ci majorité du nek ville dafa nek sa conseil te pourtant am na ñoo xamante war nañ leen dugal comme lu melni mon frère Amène Mbaye bi ma ko waré dugal daj na ci lu ne xañ da fu am na manque de compréhension ak équipe bi mu yóbbuwoon ba ma fajar mu nekkat ak le préfet Mar limay wax mi ngi koy dina ko dégg ma def naa tout pour ñu dugal ko parce que Idrissa bëgg nañu dugal ko ndax dafa bëgg ni coalition bi ku ñëw nañ ko jox wàllam. donc pour dire que ni euh, Idrissa xañ ne am na lu ñuy wax. maanaam Ahmed bu PDS. Ahmed Mbaye bu PDS bi ma déposé 7h08 7h30 la ñëwaat. gisee ak préfet ni ma non il n'en est pas question comme déposer nañu dossier yi xañ na itam euh, de passage ñu koy saluer xañ la. administration administration la. def nañ tout pourtant intervenir nañ sax ba ci le préfet département muy Balde. bu xolé ki limay wax dina ko xam. parce que on a tout fait pour intervenir pour mën euh, ci bu ñuy defoon correction yi parce que am nañ tam possibilité pour mën def ay changement mais finalement avec le préfet tam rigueur am permettre ko woon. motax lolo tax looloo Ahmed mais on a tout fait limay wax euh, je le parle contrôle.

bu fekkente ni sama mbokku taalibe mais nag bu di fekkente ni dañuy def politique nag dafa am loo man ma nekk responsable ci parti bi li nga xamante ni sañ suba ngoon guddi ak bëccëg damay dox lu ko jëmee kanam su ma gisee koo xamante ni dafa ñëw bokk ni dama bëgg a ñëw ànd ak ñun te ma gis doxalin wa ma xam ni lii du luy jëmee kanam sama responsabilité mooy war naa mën a taxaw parce que foofu la ñu toll woon donc ni ñuy doxee. ak ni nga xamante ne man ni ma bëgg ñu doxe woon ni amul foofu laa taxawoon jël sama position xam ni lii du jëm kër effectivement moo tax ñu bari di gis ni xaj na contre la woon ak yooyu parce que nit ki tam euh, ne ci nekk ak ku bëgg ku la wettali amul buntu wër leen a tàqale mais bu fekkente ni nag euh, tàng na wala leen ñu bëgg ubbi buntu bëgg a feex loolu fenêtre yi ñu ni benn ubbi ko boobaa nag foofu la coow di am mais terewul ñoom ci nee bi mais donc euh, li nga xamante ni moom la ñu woon ak moom ñun vraiment nag euh, dama yaakaar ni bu doon ni ñu ko waxee coalition wala laa jàpp man bu doon man a personnellement dafa naan bu ma ñëwee ci nit fekk leen ci seen parti bu ñu toogee war nañoo mën a fexe ba di xàccandoo di dóorandoo ndax mooy suñu intérêt nag. mais nag euh, responsabilité mooy nag suñu xàccandoowul dóorandoo nag ku bu ñu waree dóor ku dóor war nañ la nii nag lu tax dóoroo yooyu nag moo dem ba ci biir ba nga xamante ni lu nekk ñu ko ci dégg. ay Idrissa day xeex taala ay Idrissa day def nangam Idrissa xeexul taala parce que journal mos na koo génne wax ni day xeex taala pourtant journal bi am na ñu ko jël joxe ko won ko mais dafa la mu njëkk mooy dafa fàtte yàlla mais xam Idrissa ko kenn dina wax Idrissa dafa fàtte yàlla Idrissa ku ne xam na ko ku ne xam na nag ñi wax dëgg yàlla nag côté boobu moom ñu ngi ci mi ngi ciy sant yàlla bu baax ci digganteem ak yàlla ak xam li yàlla wax moom fortuwu ko euh, yàlla am na lu ko ci dénk kon donc yooyu euh, nit ñi nañu xam ni xeex ko ñun ñi ànd ak Idrissa Idrissa sant ñu xeex ko parce que du suñu njariñ koy xeex doo jël dénk ko lu mel ni mairie ville jëlee ko ci ñoo xamante ni mérité nañ ko ñoo ko moom seen trois la mu jël ko ci ñun par respect ñu nangu ko nangu bu rafet ànd ci ak moom début boo on faisait des réunions de chaque lundi mais bi ñu commencé man personnellement bi may fekk ma demoon États-Unis bi ma ñibbisee dama leen nak non parce que bon bu ñu woon ñu ñëw ñun suñu waree am euh, moom ay réunion mu war a ñëw ajuster il ne vient pas et il ne téléphone même pas pour excuser wala dara non en ce moment nag ñu né nag kon déedéet nag parce que and bi nak dañ ko wara a bon dama jappan mom bu ñëwee tok warna buy def dara ni nan lay def wala naka lañuy def lolu moy and bo xamante day nekk lu rafet encore une fois de plus j'ai pas de problème avec moi. Ce ko a wala nit c'est son problème. mais ce qui est sûr et certain euh, li nga les moy politique xagn na fofu la divergence parce que nous, commune la comme ñuy Nous, ci suñu commune di bañ tout temps comme li nga rek. ni buy audience ki ñuy maire yi ak pourtant maire yi commune yi na nit ñi xamni ñu ngi est ak ouest ak nord. réalisation yi ñuy def ñoom nañu xool population bi nan na xool réalisation bu fa nekk nan na xool ndax ville ko def wala commune ko def. muy population yi dañ doon wax ñu ne comme ni Talla Sylla la defee audience publique tey euh, maire yi waroon nañu def audience publique suivre ko parce que am nañ yeneen maire yoo xam ne ñu ngi koy toppandoo ci audience publique yéen na ban jàngat ngeen ci am. waaw xam nga jàngat bi ñu ci am xam nga loolu ñuy def boole koog ci sukkari gis ngeen ko ak yeneen ak yeneen.

ah. Hein? amassage d'ordures yaa ngi mais c'est Natango maire dañuy reproché Talla nee nañu euh, budget ville euh, gis ñu mu intervenir euh, ci commune bu Thiès Nord le maire Lamine Diallo ma est-ce que tey commune ville bu Thiès mu ngi intervenir ci commune bu Est. moom la lay wax ni dama la na nit ñi xeppi réalisation bo fi gis ci commune bu mu nek commune boobu moko ko fa def c'est pas la ville parce que mënul li njëkk moy buy intervenir ci suñu commune yi dafa naa nak ñoy le premier personne mi nga xamante ñun la wara associer yaa ngi parce que mutualisation la ñu wax ñu harmonisation loolu la acte trois bi wax mais dafa naa ne intervenir te mënuñu la wax ñun personnellement suñu diggante yàlla ni lii la def wala lii la ñu wax ni lii la fa bëgg def kon defe ni nak nag euh, wax ji mo ëpp que jëf ji franchement c'est pas que nit ñi encore une fois nañu bayyi wax sànni xeer sànni xeer y' a pas de sànni xeer li ci nekk lañ leen wax li fi am lañ leen wax amul ben réalisation yéen ngeen ñëw da ngeen couvrir toujours gis nga bi ñu jox fin d'année yi ak yenen ak yenen hein ah. def matériel médicament bi ñu koy def fourniture scolaire yi ah ak yenen ak yenen non man dégg naa man naa ne de dégg naa fourniture scolaire. Mhm. yaa ngi dégg. waaw ville joxe na fourniture scolaire ak euh, euh, kii subvention ci poste de santé yi.

c'est que nag nit ñi nag wax xañ na li ñuy wax rek naan communiquer c'est bien moo tax gis ngeen euh, on est prêt nag euh, a yokkaat communication parce que duñu bàyyi kenn ak le terrain nit ñi nañu xam tam xañ na ñu ci bari nag li ñuy xalaat mooy xañ na social ak nangam nak ak ki dégg mais nak ñun li ñuy def mom lu euh, kenn kenn du dal jëf ak wax. jëf ak wax euh, très bien monsieur le maire tey euh, dañu bëgg rek nga wax ñu parce que gis nañu euh, le maire Talla Sylla créé mouvement Fal Askan Wi muy le mouvement du peuple par le peuple et pour le peuple yéen ci biir réew mi naka ngeen ko jàngatee ngeen bokkoon coalition en Defar Thiès. waaw ni loolu mooy wax li ma wax rek li ma ni loolu bokk na ci action yi nga xamante ni man bokk na ci yi ma njëkkut yi remarque yi ma njëkk di def ci li tax rafetlu ma jëfindi parce que nit ki mënoo ñëw ni da bokk ci coalition ñu ni jënd nga carte et puis ni da ngay xaar pour am six mois siiwal ko foofu rek ça y a parce que dafa am looy xaar li ngay xaar nag dafa am loo xam ne boo gisee loolu la jaral toog ci toog fi soo gisee loolu jaral toog fi bañ fi toog donc moo waral mu dem bi mu indi nag mouvement la wane confirmation ni duma fi toog duma bokkate réew mi foofu moom dafa nekk lu day waar parce que carte ku ko jënd wane ne bokk nga wa amul sax loo ciy nëbb naan looy xaar ay 6 mais mooy li ma lax da doon ñëw dugal benn tànk pour xaar parce que nit moom bu ñuy wax nañ wax rek te lii dëkk ndax ni ñuy déglu duñu ay dof aussi parce que ku dof euh, bokk dañ naan dañuy xalaat ni dof euh, lan beneen dimension la mais nag nit ñi moom war ñëw dépasser loolu. parce que nag jënd carte réew mi nii damay xaar 6 mois bu nu xoolee xaar googu daa am looy xaar soo ko gisee xañ na man cee seey soo ko gisul am loo créé bi mu créé mouvement bi ñu ma fi mais dama ko liir dégg mu wax ni ànd contrôle pouvoir contrôle Macky Sall contrôle Idriss Seck mais si din dama leen déedéet kon kay nag nan waxante dëgg contre la war a nekk parce que mën nañu def ak nit coalition mu yëkkati maire yi de la ville jox la te am ñu koy moom ñu nangu ko ñu jox la ko nga ni carte membre bi moom nga yor dem nga ba léegi te carte membre bi nga jëndan 6 mois yi passé na te nga ko de côté